sant yàlla dañ ñëwoon fii pour euh, ziar Serigne si Serigne Thierno Mountaga et puis sàkku ñaan sàkkul ñaan ki réew ki réew mi mooy président de la république sàkkul ñaan euh, ARTP sàkkul ñaan Sénégal également dama ñëw ànd ak sama secrétaire général ak samay directeur samay directeur madame Diagana monsieur Thiam monsieur Niane monsieur Tall l'essentiel de mes directeurs Euh, li ñu andi woon fii mooy sakku ñaan et puis aussi ñëw xamal xalif yi ne incha allah ARTP dina def lépp li ko war pour que euh, ci bis bi incha allah lépp li jëm ci ay télécommunication mu jaar yoon. suñu service ci wàllu communication suñuy nit dinañ ñëw incha allah parce que xam nga ko ndaje yu mel nii dafay bëri nit téléphone bi dafay dox internet bi dafay dox. donc suñuy nit dinañu ñëw taxaw fexe ba opérateur yëpp def li leen war pour que événement bi jaar yoon. waaw bi moom appui bi ñaata lu sol toll amul solo li am solo mooy euh, ci événement yu mel nii euh, événement yi nga xam ne événement wu réew mi yëpp bu jotee il faut que. Khalif bi wax na ko léegi bokkul ci ay charte euh, organisation ou société mais c'est des événements yoo xamante ne c'est des événements d'envergure nationale donc bu jotee structure yëpp dañuy faral di ñëw andi ndimbal ndimbal ñi ndox la ceeb ak yu mel noonu